merci beaucoup waa Jolof merci beaucoup waa département de Linguère seen mobilisation bi mobilisation exceptionnelle la ñu leen ciy gërëm bu baax di am mbégte teew fii parce que président élection présidentielle bi xam ngeen ni maag président Diomaye dañoo xaajoon mbiri moom mu jël benn xaaj mu jël benn xaaj kon moom moo jotoon a jaar fii moo tax ma xawoon a namm Jolof ndax je crois que élection législative 2022 laa fi gëjoon a jaar waxtaanu tey bi nag du sori parce que dama waxoon El Malick mu def waxtaan de fon bi mooy mu jukki lenn rek ci li ñu war a waxtaanee pôle bi te waxtaan boobu ñu war koo def ci mitingu Mbacké incha allahu le dimanche te xam naa ni ñu bëri ci nañ fa teew. mais pôle bi nga xam ne moo dajalee région de Louga te département Linguère bokk ci ak région de Diourbel laa ne woon El Malick li nga xam ne mun na concerner fii département de mu jukki ci waxtaan ci tuuti li tax ma def ko nag mooy bëgg a denc la ca des ba keroog waaye surtout moom El Malick di siéger ci gouvernement bi dafa bokk ci ñi xam référentiel bi bokk ñi ci liggéey ba nu ma ko présenter rek war na ko mën a présenter nu ko gën wala au moins mu présenter ko nu méngoog loolu mais li ma bëgg waxtaan tey dinaa ci wax loolu dinaa ci am tuuti rek lu ma ci cof waaye tey dinaa waxtaan politique nag ndax biñ dooree ba léegi dañu ne dañuy waxtaan ci thématique mais bu ñu fàtte ne ñun avant tout li ñuy def politique la El Malick dafa am lu mu wax léegi muy loo xam ne lu tiis la ci Sénégal lu ñaaw la ci Sénégal lu ñu mënul rafetul la mooy tey au vingt et unième siècle fii ci senegal am na ñoo xam ne mbiru waaso ak mbiru xeet la ñuy politiquer loolu lu ñaaw la buñ ko waxee lu ñaaw la buñ ko waxut lu ñaaw la mbir mi nag il faut ñu koy laal buñ ko buggee régler maslaha bi dafa ëpp ci réew mi boo waxee ñu ne wax na lu ëpp man nag xam ngeen ni dafa am nu ma yàlla bindee man gisuma lu fees sama bët bii te bëgg carte électeur u nit du tax ma wax la lu dul dëgg réew bu ñu bëggee muy dox il faut ñi di waxante dëgg waaye politik boo xam ne laloo ko lu dul dem fekk ay nit naan leen ñii dañ laa bañ parce que bokku leen xeet wala ñii dañ lay xeex ndax bokku leen xeet kooku politique la boo xam ne politique de caniveau la te diggante zone bi jëm kaw depuis ay ati at at daf fi bëri gis nga Sénégal ci juróomi at yi président bi Bassirou Diomaye Faye la tudd waaye incha rabbi Pastef fii ak at yu bëree bëree bari moom mooy téye réew mi doxal ko parce que ñooy wax dëgg ñooy def dëgg ñooy jub di jubal di jubbanti loolu la réew mi soxla kon kon ku ñuy naxee loolu ba nga jàpp ni ñii fi nekk lii ak lële ñu lay sonnal di la teg duñ la warut teg parce que nguur moom moom responsabilité defal réew mi defal waa réew mi kenn ku ne ci activité bi ngay def kuy napp wala kuy sàmm wala kuy bay wala ku nekk ci industrie kenn ku ne ci li nga soxla ci service sociaux de base muy ay hôpitaux di ay tali di ndox di courant wala école yi xale yi di jànge wala université yi loolu nguur rek moo ko mun a defal nit keneen mënu koo def donc politicien bi ñëw di la seet donc raw si dolli moom bi muy ñëw tey opposition la nekk bu doon am na lu mu randal denc koy léegi mu ruus ndax bu koy génne sax day làqatu di ko génnee ngir bañ ñu dal ci kawam. kooku bu ñëwee bëgg laa féewale ak nguur naan la ñii dañ laa bañ tey kuy sàmm kuy sàmm vol de bétail mooy sàccum njur mi kan moo ko mën a xeex du état est-ce que amul fii ndax nekkul problème fii te ñun dinañ ci def lu ci kenn deful nag ndax ñu ngi examiner sax possibilité taxawal brigade spéciale boo xam ne mbirum sàccum njur rekk lay liggéey pour mu jeex ci Sénégal définitivement kon kii di bay baykat bi pour mu bay kan moo koy jox jiw du état ku koy jox engrais du état gannaaw bu bayee ba pare kan mooy organiser ne prix bi li ñuy jëndee euh, gerte gi walla leneen ak leneen nangam lañ koy jëndee kan moo koy yóbbu Sonacos ñu ñu defar ko fa diwlin kon état boobu naka la ñu mun a ñëwee di féewale nit ñi ak état te tegguñu ko lu dul ci bokkook moom xeet te fii nag ñëpp fi bokk xeet de man sama maam bi ma jur bi jur sama yaay ulay sow la tudd dëkk njaayan pendaaw kenn mënumaa génne ci xeetu alpulaar kon nit ñi ñoo war a yeewu seen yeewu bopp yàgg naa leen wax depuis 2019 bi may nekk candidat élection présidentielle dama dem ba Bignona gi ma dëkk man leen bu ngeen di woteel Ousmane ko du ngeen ko woteel parce que waa Bignona la de du ngeen ko woteel parce que doomu dëkk bi la waaye da ngeen koy woteel parce que yaakaar ngeen ni jub na am na xam-xam bëgg na réew mi te suñ ko ko dénkee mu defar ko noonu la ñuy choisir président ah, ki fi nekkoon président def na fi ñaataat 12 ans lan la def Jolof lan la def Fuuta lan la def Fatick kon loolu rek war na yee nit ñi lii nag lii nag boo gisee ñu ciy wax ñun ku wote pour ñun ak ku wotewul pour ñun la ñu yemale état bi su li mu war a def fii ci département Linguère bu ñu lingeer voté loon sa 2 pour cent sax du tey li ñu war a def dinañ ko def ba mu mat sëkk parce que loolu mooy responsabilité état bu leen li jiitalee da ngay jël de la hauteur ñoom ñoo moomoon ku àndul ak ñoom ñu téye budget ne du ñëw foofu xeex maire bi fa ne mais ñun xamuñu loolu kon lii li muy màndargal nag mooy xeetu politique bi ñuy def ñoom dama wax dinaa wax tuuti ci politique. li ngeen gis bi ñu toogee ñun ba léegi juróom benni weer gars yi mel ni ñu jëfur takk rajo yi taal télé yi suba ngoon wax bu bon bu ne ñu wax ko yàlla xam ne ñii dañoo am sens ñii dañoo am sens boo gisee nag ñu jël seen lépp focaliser ko ci Ousmane Sonko parce que dañu xam ni man duma koo xam ne sama moroom dina ma fontoo ma bàyyi la ci man xaw ma loolu duma ma tooñ nag man duma tooñ kenn du ma sa dégg ni tooñ na waaye nekk ak say morom bis bu ne ñu xëy ne ñu lay tooñ nga seetaan leen ci loolu ci ñàkk fulla la bokk ci ñàkk fayda la bokk te loolu mun na yàq réew parce que daf ci am ñoo xam ne ngeen jégal ma ci kàddu gi ay baadoola lañu bu ñu làmbee mu nooy rek dootuñu arrêté bu ñu waxee nga bàyyi dootuñu arrêté Pastef li tax ñu résister pendant dix ans mënoon nañ def ni ñeneen ñi def bàyyi gaay yi taxat ñu kon tey tey duñu yor réew mi dama ne et je lance un appel à tous les patriotes un appel à la mobilisation bu leen tooñ bu leen saaga bu leen xuloo waaye ku leen xosi xosi leen ko ku leen mbéj mbéj leen ko man li ma waxoon démb laay wax tey bu leen neexee ñu ne kii bëggul jàmm waaye jàmm boo gisee États-Unis ak Russie ku nekk di moyetu moroom xam nga lu tax parce que kenn ku ne xam na ni moroom am na bombe atomique te su ma ko dóoree mun na ma ko dóor loolu la ñuy wax l'équilibre de la terreur waaye ñii nga xam ne juróomi nit topp leen ñu bëgg a terroriser réew mi parce que ñoo yor rajo yi ñoo yor télé yi buñ leen ci seetaanee war nañu xoolaat suñu bopp li ñu dëgmal nag élection la ñun li ñu woote ci réew mi ñun opposé wu nañ pendant des années est-ce que mus ngeen ma dégg ma saaga mus ngeen ma dégg ma attaqué vie privée jàmbur mus ngeen ma dégg ma wax lu ñaaw ci nit assemblée laa doon taxaw ne sàcc nañu xaalisu réew mi indi samay preuve assemblée laa doon taxaw ne pétrole bi ak gaz bi def nañ ci lii napp gi def nañ ci lii loolu mooy politique mais seet leen di xew léegi ci réew mi seet leen xew ci réew mi foog ngeen ni loolu jaadu na moo tax ñoom dañoo jàpp ni comme xam nañ ni duñu am dara ci élection yi ñu ne kon nañu xajamal mbir mi ñoom ñoo ta ñoom pour ñoom ñun ñoo takk càq bi donc comme borom caq li olof di wax borom caq du xeex ak borom baatu neen ñu nekkoon nañu xajamal mbir mi nañu provoqué nañ leen attaqué suñu defee seen caravane nañu fexe ba ñoom ñu provoqué leen ba yi ne ñoom ñëpp a yem foofu lañ jumee nag gis nga buñ ko continuer dinañ leen duma duma yu leer naññ ci terrain bi doog a dem ci urne yi duma leen fa duma yu leer naññ parce que sénégalais yi xam nañu. mën nañu ràññee mën nañu xam kuy tooñ ak ku am dëgg kon mbokki Daara Jolof yéen laa koy wax di ko wax toute la jeunesse patriotique du Sénégal notre révolution a commencé te gannaaw yàlla gis ma lu koy téye réew mi dinañ ko defar ba mu ne coc dinañ ko jubbanti ba mu tegu ci yoon programme bi ñu leen andil yéen ñëpp mën ngeen comprendre mën ngeen liir xam ngeen di lii ñu leen andil bu ñu ko doxalee fii ci Sénégal fii ak 5 ans fii ak 10 ans gëm naa ni te ça c'est pour vous les jeunes parce que ñun nag amatuñ lu ñuy gañe ci mbir mi ah suñuy sonn suba ba ngoon jot yéen yéen a tax ñu sonn parce que yéen yéen a war a sañ kër yéen a war a jël soxna wala su dee jigéen yéen a soxla borom kër yéen a war a ut dépense yéen a bëgg a teral seeni waajur. kon kuy bëgg a defar Sénégal yéen la koy defaral moo tax yéen a war a jiitu ci combat bi bu leen kenn détourné te campagne bi mu door rek léegi nag li mu wone dëgg dëgg dëgg mooy l'échec d'un système ak li ñuy wax les médias mainstream mooy seeni journaux seeni télé seeni rajo ak li ñu dencoon ci ay milliards te gannaaw bu ngeen ñu joxee assemblée nationale nag ñoom ñëpp dinañ jaara milliards yi dinañ ko goqi de ni ma leen ko waxee nii lay amee milliards yi dinañ ko delloo réew mi moo tax li may mën a busa di wax ñoom ñëpp ñu bëgg a dem wut asile assemblée nationale même ñu ci jot ñi ci jotoon a rëcc bu amee ñu ci jotoo a rëcc ba dugg assemblée nationale lever immunité parlementaire lu yomb la ci ñaari fan mën nga lever immunité parlementaire. kon loolu réglé wul seen problème mais yéen ñeen a war a doon la gardien les gardiens de ce projet parce que jàpp nañ ni par intoxication wax lu dul dëgg inventé ay mbir suñu xëyee ne way Casamance nii suba ñu ne Sonko ki Diomaye ngi doon xeex pale gannaaw suba ñu ne déedéet li ñu wax ci bor bi amul yéen yéen a war a doon les gardiens et vous l'êtes déjà mais dama bëgg ñu yokk ko parce que révolution fu mu sa am rek demal xool Chine fi ñu nekkoon yaa y a 40 ans il ak fi ñu nekk tey demal xool Corée demal xool feneen ak feneen révolution dafay am ñu koy garde du du xeex naa rek ba jox réew mi diw pare naa ci maa ngi dem toog waaye dangay ànd ak moom bés ak bés tànkam sa tànk ngay saytu lu muy def. waaye noon bu ñëw moo xam noon bu jógee bitim réew parce que bëri nañu parce que fu ñu bëgg a yóbbu réew mi ci moom suñu bopp ci souveraineté ci jëlee fi nooteel ci jëlee fi nangu suñu alal réew di ko yóbbu bitim réew loolu neexul ñu bëri ci waa bitim réew te suñu mënoon pe su pexe bu ne rek ñu ngi koy lal pour loolu bañ a antu la leen arrangé mooy ñi leen fi toogaloon lu ñu bëgg ñu signé leen te loolu jeex na ci réew mi. waaye noonu biir réew dafa am mooy ñi nga xam ne politique bi yépp mooy seen poos ak nu ñuy def ba accaparer les ressources de ce pays tey gis nañ ni loolu jeex na waaye neexu leen dañoo bëgg a dellu si ñan ñoo war a doon les gardiens de cela mooy yéen le peuple sénégalais et particulièrement cette frange jeune qui représente plus de di pour cent du peuple loolu nag pour mu am xam naa ni am ngeen ko ba noppi ràññee am ngeen ko ba noppi bu njëkk ba sénégalais bu ko yee taal rajoom lu mu dégg ci rajo beeg jàpp na ni lii dëgg la mais li xew ci campagne bi xam nga lu mu firndeel mooy sénégalais dañuy toog di seetaan télé benn waay di wax a wax wax ku nekk toog ne waa jee mën a fen waa ji nag foog na ni moom moo fi ne nii convaincre na sénégalais yëpp mais campagne bu jotee. waa ji génn yéeg ci kokk kaw otoom tàllal loxo gisul ñetti nit war na xoolaat boppam ràññee boobu laa bëgg ngeen am ko parce que dañu nekk ci jamono démocratisation de l'information Sénégal ba 1985 1987 benn télé moo fi nekkoon benn rajo benn journal doyen Habib si xam na li may wax tey nag waxuma la télé waxuma la rajo waaye kenn ku nekk ci téléphone portable am bi mu yor bis bu ne bu connecté dina gis téeméeri nit ñuy def live dina gis téeméeri nit ñuy bind waaye dama bëgg ci loolu lépp ngeen di ràññee ràññee bi mooy ñi ngeen wóolu ba jiitu leen jiital leen teg leen ñuy liggéey na ngeen leen natt par rapport ak ñoom les actes qu'ils natt leen par rapport ak li ñuy waxtaan ak yéen te bañ a déglu ñi nga xam ne seen gémmiñ fi mu ne nii day nàcc moo tax mënatuñoo wax jàmm loolu laa bëgg ci yéen c'est cette conscience très forte qui sera la première protection et la seule protection dont la dont a besoin le projet est-ce que pare ngeen pour loolu la ca des nag fii Daara Jolof fii département de Linguère lu tuuti lu may jukki ci programme bi dama koy yóbbu ci li El Malick wax léegi muy càmm gi càmm gi dafa am benn filière bu am solo ci vingt filières yi ñu war a développer muy filière bi nga xam ne parce que càmm mooy woo xam ne amoo looy sànni ah. sànni der bi doo ko sànni ndawal gi doo ko sànni waaye meew bi ci boppam ñëpp xam nañ liñ ci mën a def kon loolu rek. mënoon a développer pole bi ndax ñëpp xam nañ ni capacité bi am fii ci élevage néew na mu am feneen ci Sénégal moo tax agropole bi El Malick wax bi nga xam ne filière cuir peau et lait et viande muy ñeent moom lañ ci gën a bëgg a développer lu bokkul ak mbay mi nag parce que mbay mi am na doole fii également moo tax ñu ne agropole agriculture soo gisee bi ñu ñëwee toog dañu ne sénégalais yi yàgg nañu constaté di ministères yi bëri na réew mu mel ni Sénégal am ay 45 ministères parce que kenn ku ne bugg nga ko satisfaire loolu du yoon ñu ne kon nañu dajale ministères yi moom mii El Malick Ndiaye ministère bi mu yor balaa muy ñëw ñetti ministère lawoon woon ndax infrastructure teres aéroportuaire loolu yëpp nga dajale ko ci benn ministère loolu gëj naa am Sénégal noonu lañ ko defee ci beneen ministère ak beneen mais ñëpp xam nañ ni càmm ak mbay dañoo ànd la ñuy sàmmee day jëriñ jur gi waaye li jur gi di génne ci biiram day jëriñ lañuy dañuy day jëriñ day jëriñ également baykat bi donc la ñuy bay day jër jëriñ kii et cetera ñu nekkoon lépp lu jëm ci mbay mi ak càmm ji logique la ñu boole leen mu doon benn ministère te loolu du guléet ci Sénégal doyen Habib Sy xam na li may wax ministère de l'élevage et l'agriculture yàgg nañ koo boole kon naka la nit di ñëwee fekk ay baykat naa leen waaw dañoo contre mbay mi moo tax gis nga génn eh, dañoo contre càmm gi moo tax génne nañ ko ci ci pôle boobu nag wala ci filière boobu tey suñuy cordonnier ñi nga xam ne ñooy def dàll yi ngay ñi nekk ndakaaru village artisanal ak feneen ak feneen même bu dee am nañu fii der gi dañuy obligé di ko envoyé Italie pour ñu traité leen ko ñuy doog delloo ci der bi fii pour ñu mën cee liggéey loolu mënul téye artisanat or artisanat c'est l'un des secteurs les plus importants qui pourvoit beaucoup d'emplois qui pourvoit beaucoup d'emplois mais amuñu cette matière te mu ngi fii ci Jolof meew mi la ñuy importer ay centaines de milliards la ñuy importer par année ci meew te su doon meew naturel sax mais meew synthétique la meew yu bëri yi ngeen di naan fii xam leen ni du meew dëgg dëgg dëgg bu ngeen ko dajee dugal ci kaas yëngal dañoo jël tuuti ci meew la ca des ay produits synthétiques la moom lañ ko defaree loolu moo am na ci xeetu meew yoo xam ne sax dëkku tubaab yi dañ ko fa tere te ñun bis bu ne moom la ñuy ndëkkee kon te boobu jamono fii ñu ngi fiy tuur meew parce que amuñu des unités de conservation bu nit ñi rattee ba noppi meew dafa gaaw a dafa gaaw a way bu wayee tam dafa gaaw a yàqu forox donc soo amul ay de conservation mënoo ko def dem leen ngeen xool lan la ñu wax ci programme bi te nii ma ko waxee incha allahu noonu lañ koy defee fii ci daara loolu ñaata ñaata milliers d'emplois lay créer pour vous les de ce pays kon vision bi leer na dafa leer nañ équipe yi am nañ ko ndax yéen a fal président muy presque seen masse di président boo xam ne c'est président jeune dynamique am na xam-xam ngeen jiital mu jël premier ministre teg ko sama loxo ñu defar gouvernement boo xam ne yéen ñëpp gis ngeen ko lan moo ñu manqué mooy ngeen jox ñu assemblée nationale pour ñu mën a voter loi ñu war a roote loolu mooy objectifu fi ñu jëm nii am na ñu wax léegi nag ni Daara Jolof Linguère département de Linguère yéen da ngeen am benn bor boo xam ne du ñun ngeen ko ameel de Sénégal ngeen ko amel parce que nag fa ñuy defaree réew kenn ku ne war nga fexe ba ne kenn gënumaa gore kenn jiituwuma fa am na nag ñu am avance bu bëree bëree bëri parce que projet PASTEF dafa commencé il y a 10 ans 2017 la ñu commencé gagner nos premières communes 2019 ñu ñëw nekk troisième ci élection présidentielle gagné ay département gagné ay commune 2022 élection locale élection présidentielle 2024 élection présidentielle yooyu yëpp jamono bu ñu toll rek am na ay communes yu ñëw yokk ci am na ay départements yu ñëw yokk ci waaye ba léegi dégg gu ñu département de Linguère moo tax nag comprendre nañu yéen ñi nekk fi taxu leen ma wax de su ngeen con su ngeen amul conviction ci projet bi du ngeen doon toog fi ba bi duñu xaar mais li ma bëgg mooy ña des nekk ci biti nekk ci kër yi nekk ci marché yi nekk ci gare routière yi nekk ci village yi gën a reculé ñooñu laa bëgg ci neuf jours de campagne yi des ngeen dem jëli leen ngeen dem waxtaan ak ñoom ngeen dem déconstruire li nga xam ne ñii nga xam ne mosuñoo am projet ni programme pour le Sénégal moom la ñuy dem foofu di leen ko wax c'est ça l'enjeu sasuma leen 80 pour cent yi ma sas ñeneen sasuma leen 75 pour cent man li ma bëgg rek mooy ñaari député yi nga xam ne mooy député département bi dama bëgg mu doon des députés Pastef ba ñay taxaw assemblée nationale di fa waxal Linguère mu doon waa Pastef parce que xam ngeen lan mooy logique gu Pastef def leen ko nag muy xare nañ ko def benn yoon mais il est impératif que département bi ñu gagné ko ne serait que sax pour El Malick Ndiaye mii bu ñëwatee conseil des ministre bu siggee mun a xool nit ñi loolu ne serait que pour ça Linguère da ngeen war a gagné largement. pour que les deux députés de Linguère yi dem assemblée nationale accompagner le président Diomaye ci programme bi ñu leen wax mu doon ay député Pastef est-ce que vous prenez cet engagement ici et maintenant kon la ci des mooy jëli carte électeur yi continuer campagne bi mais béssu vote bi na ngeen teel a jóg bu leen ne élection bi c'est moins important que élection présidentielle c'est tout aussi important sinon plus important kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di leen souhaiter une très bonne soirée asalaamaaleykum wa rahmatullah Michael, Michael.